ñuy bàyyi ko côté bu nekk vraiment xam ne dañuy dem mënatuñ ci dara il faut ñu dem xam nañ ne dañuy dem te mun ñoo tere mu dem est-ce que micro yi baax na baaxul waaw ah, nee na micro yi baaxul léegi est-ce que baax na léegi baax na jaajëf kon nag gars yi ñu leen di xamal ni la Sénégal sa mandat Macky Sall nguuram jeex na day dem day dem day dem day dem le 2 avril au soir du 2 avril Macky Sall su fekkente ni bëgg na jàmm na na fekk organiser élection yi ba pare ki ko war a remplacer remplacer ko Sénégalais dem dajaloo remplacer ko ñu dégg suñu réew keneen fukki at ak ñaar buñ la ko denké réew ngay dox réew mi di la seetaan ngay def ay ñombé ngay def ay ñombé bu fukki at ak ñaari jeex ñu ni dañuy wajé def campagne électorale nga ni suma démé campagne électorale té jotna ay sondage ñu won ma ni sama candidat du gagné parce que sama candidat mën ta am sax 20 gani kon na dag campagne bi yak élection yi pour ñu defaraat ko sénégalais yi duñ ko nangul tay duñ ko nangul ëlëk élection par force élection par force élection par force élection par force donc Macky Sall képp ku koy digal na bàyyi jafadu bi fi mu doon nii lu mu jafadu lay la bëgg di tuumaalaat kee naan kee lii moo tax dem nañ tooñ nañ kee wax nañ kee comme xale bu jigéen bi ni mu ko waxee dem ba sëy bi jeex moom ak Sénégal mu ni yéen ki ngeen di waaj a takk man maay wax kan lay doon ak kañ lay ñëw kooku nag moom yoonam nekku ci ñun sénégalais yi ñooy wax kan moo nar a jiite Sénégal à partir de du kon li ñu bëgg mooy conseil constitutionnel conseil constitutionnel na jàpp date bi parce que Macky Sall du jàpp date bu Macky Sall dafa ragal ñemewu la moo tax bëggu ñu dem kon na conseil constitutionnel jël responsabilité am ñu ab date sénégalais même bu dee ci biir koor gi pare nañ pour dem ci biir koor gi ci biir koor gi ci biir koor gi sénégalais yi pare nañ pour nekk ci digg koor gi dem voté ji parce que tàqali ko ak Macky Sall tàqali ko ak Macky Sall jar na voté ci biir koor gi kon Macky Sall day dem day dem na dema dema dem na dem na dem na dema dema dem na dem na dem na dema dema dem donc merci beaucoup sama gars yi merci beaucoup merci